dañoo gis ne dafa am benn waay bu woote waat Kolda léegi ne moom prophète la léegi ah, lool la mooy. mu ne lan la. prophète la. prophète waaw maam yonante la quoi. yonante yonante nga wax. yonante ban yonante la. ah loolu la wax de la. nu tudd tudd. waa ji xamuñu tuddee mais Kolda. Ah, yow ñun l'absolu nañu xam ne ki njëkk ki mujj muy Seydina Muhammad kenn dootul ñëwaat si ginnaawam kooku xanaa dafa kërëmbe la wala lan yonante non Sénégal moo neex. Sénégal dafa neex ba ku jóg di woote ay yonante ana ku ku jigéen ku doon woote yonante ñii waaw yow ñii xanaa ñu alxuraan. bu dégg naa am na ay taalibe. ay taalibe kooku yonante la kooku nañ ko bàyyi mbirum suñu borom nañ ko bàyyi Seydina Muhammad ba xam nañ dem si kanam tuuti su fekkee yonante la dinañ si xam dara yonante daal sëñ bi li ma si xam Seydina la yonante dootul wàcc jeex na. fi benn prophète bu muy Seydina Muhammad amul kenn ko fi nekk Seydina Touba ba mu ñëw waxu ko El Hadj Malick waxu ko kon moom du ñëw

maam bu maam li maamu xanaa nit ñi ko bëgg a tuddee ab yonent rek wala moom mu bëgg a tuddoo ab yonent waaye ab yonent moom mënatu fee amat ndax ginnaaw yàlla sunu dafa waxoon ni yonent bi moom mooy moom mooy mujjug yonent bii kon beneen yonent bi a amaat ci ginnaaw yonent bi loolu nag ay pexem seytaane la rek ndax seytaane mooy doxale noonu mooy bëgg di euh, dugal ci xeli nit ñi lu bokkut ak li nekkoon ci seen xol te loolu bu bu yàggee mën naa jaxase diine ji wala mu dugal ci nit ñi wala mu wala mu dugal ci xel nit ñi loo xam te ne day tax ñu seen diine di woyef ndax loolu liggéeyub seytaane la mooy def nu mel noonu waaye bi yonente moom mënu fee amaat ma xamal ko ne ñëpp ndax yonente bi moom mooy mujj yonente bi te beneen yonente du ñëwaat ci ginnaawam ndax bu doon loolo euh, gis nga ci di Serigne Touba Serigne ba bi mu ñëwee dafa topp ci ginnaaw yonente bi te defe naa ne moo ëppoon doole euh, kooku di ngeen naan mooy wetam yonent te moo ko mbooloo fop te te moom bi mu ñëwee dafa woote ñu topp yàlla ko bi yonenteem kon bu keneen ñëwaatee bëgg ni day woote am nubuwa loolu mënut fee am te kooku nag na jéem a na jéem a liggéey te topp yàlla te topp yonent bi moo gën yii muy def nii. lu cëpp nag réewum Sénégal moo moo demee noonu parce que dafa bari ay droit bu ñuy xam ni droit de l'homme wala droit nangam droit nangam. lu cëpp état bi moom moo leen di promettre wala moom moo leen di xaw a ci yenn yi ba ba ba maanaam ñuy def lu leen neex waaye bu doonte ni euh, dañ ñi réew mi ku fi weddi lislaam ñu rey la wala ñu def la nangam kon yooyu yëpp di ci am waaye tey tey da ngay da ngay da ngay woote sam mbooloo jioloog lislaam ñu di la seetaan dañuy wax nit droit droit nangam la droit nangam la parce que nit ki sañ naa lii sañ naa def laa te alors ko lislaam demewut noonu nekkul nekkul diina joo ne dafa woyof ba loola ba neex def parce que dafa nekk diina joo xam boo ca xasee dugg rek yaa ngi si biir nekkul ne loola neex def nekkul ne dangay génn diina ji nekkul dangay ngay def da ngay def laa da tënku ci diina ji tënku ci li diina ji santaane nga di ko def li mu tere nga di ko bàyyi waaw mais suñoo suñoo def lu génn diina ji mais nag état doxewut noonu ak lislaam maanaam nag yoonu boppam la waaye nag lislaam moom yoonu lislaam la wu set wecc te li ci biir mi ngi ci biir ki ne ci biir moo ko xam. waaw waa jooju noonu wax dëgg fa yàlla loolu moom dafa wax lu ko neex rek ndax réew moo xam ne sëñ Bamba tëdd fii sàmm ba tey taxul ne yonent la comprendre Alaaji Maalik tëdd fii ba tey taxul ne yonent la waa benn waaye jóge fële ñëw ne yonent la kooku moom dafa yab nit ñii rek yab nit ñi rek laa ko mën a jàppee daal. Hmm, président réew mi suñ la falee am yenn yoo xam ne yaa ko war a lijjanti sama sénégalais yi waruñu sax di wax sama ñun ndaw ñi waruñu sax di wax ndax Sall moom moo war a jël kiwoom sama doxal loolu waaw ndax mooy borom réew mi. yeneen xanaa àddinaay ba nga tukki. ah woote na ne yeneen parce que li yàlla wax si alxuraan dernier prophète Seydina Muhammad la xam nga li la kon kooku bu wootee yeneen di ak ni ko gaay waxee naan ay daa am kaaba boppam mais loolu fan la am. xanaa moom moom kooku moom jullit la wala jullit moom loolu lañ. xamuñu lan la mais en woote na Kolda ne moom kii la. non loolu manul nekk kooku du bëri candidat de sama waa ku jàng dëgg dëgg dëgg du topp kooku. am na ay taalibe de. am na ay taalibe kon jamono bëgg a na si gaay bàyyi xel. non Sénégal gii nag booy li nga wax nii dëgg la de fii lu neex waay def xam nga li la fii moom sëriñ si sax moom lañ gën a jox. faveur normal ni ki yeneen bi déggoo ma ne booy bàyyi ci xel bu baax parce que boo xoolee jour bi ñu sabootee Seydina Mohamed gisoo fi si jour boobu wala si suba si kenn ku taxaw kaas gis nga dëgg moom la yàlla bëgg doon dañu lay rendi dégg nga Sénégal nag moom lu neex waay def lu neex waay dugg xam nga li ma la mais nag saytaane moo bëri doole dañoo nekk si mujjug jamono lu neex waay def lu mais yàlla nelawul li Seydina Muhammad wax ñëpp wax ko fi bàyyi ko fi si daaru duniyaa yow nga ñëw juddu démb naan yow da yow yonentu nga quoi tamit na gaay bàyyi xel seen loolu. ah man de ba ma juddoo sama ndey ak sama baay ba tey benn yonent laa xam muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam képp kuy jullit. mooy suñu yonent ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulul moom mooy suñu yonent moom laa xam xaw ma beneen yonent